برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان قاضي الحب قد مات محبة طال شميه وقد مضى لي قاضي الحب قدم ما حبات طه الهاشمي وقد ما فأحببت طه المصطفى بطريقتي وقد زاد حبي بدا كامل الرضا واحد ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي لجفن مغمى والملا ورب الناس طرا يحبه وأعطاه حتى عاد عنه هوضا فمن بايع المختار بايع ربنا وذلك حكم في الأوامر والقاق فذكرت مختار الخلائق مهينا لدى لبي الورى وأرضى بما قضى بليلتي راج الرسول فهاجئي فاعل منها لا أختشي والرق بليلتي راج الرسول فاعل دفاعل لا أختش الموسى والرضا ودادك يلهيني أبيت وريقا وقد شاب هودي وهو للحب قط عليك أيدني قلت وجعلني ونجنا من غضب ونقم مصاد متصدقين متصدقين وصائمين دار حافظين باع النفوس دما أموالا كالمؤمنين حبذا أحوالا أجب يا ربي بالسر الذاتي والسر الأسماء أو الصفات ربي يا ربي أتمم فعلا ما قد قصدت أن ترين ليلا وأنت أكرم وأنت أعظم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر ولا يكن مع شفاعتك إذا لك الحمد والذل كافي تقلب العالم Because the ci barab yi jiite nañu ñu yu bëree bëri day ñëw pour sagal ñu ñu ngi loolu di ko xamal ni daal ñun du suñu yitte lii suñu yitte li ñu bëgg mooy ñu nekk soldaaru fayda bi loolu la ñu fekk suñuy maam loolu la ñu fekk suñuy baay ñu nekk ay taalibe boo gisee toujours ñu bëgg a roy baay

ñaanal bu baax di ñaan yàlla li ngay def bàyyi ñaas gis na ko sëriñ bi mi ngi nii ñu ngi koy seede kontaan nañu ñoom bu ñu kontaanee bàyyi kontaan na bu bàyyi kontaanee sa mbir yëpp a ñëw incha allah Papis ñaan mi ngi nii bi mi lay dénk ñaan mi ngi jublu ci ay mbir yu bëree bëri mu yaakaar ni sa bunt la boo xam ni lépp dana ubbeeku sa ñëw bii ñu ngi yaakaar mu nekk loo xam ni kaaraange la boo xam ni buñ ko amee doon na ma soxla dara ñu ngi sant bu baax mbooloo mi ñu ngi ànd ak sëriñ bi ñoom Baye Ciss ñoom Ibrahima bi tey ñëpp a ngi fi Seydina bi That's it. I fondement bi maam moom ñoo ànd gas ko fi ñu koy gas pareegul lu ëpp juróom fukki oto gaare nañ ci fondement bi te ku ñëw daf ñuy wax ne lu ngeen luyee dañoo foogoon ne ay magasin lay gas bu ñëwee ku ñëw na lu ngeen luyee mu ne man damay luyee waaye li may luyee yéen mënu leen koo fay bi jumaa ji taxawee xam nañ man loolu wax pare gàlla waaye pare gàlla mu ëpp pare ay magasin bi ñu koy gas bi bëri na ñoo foogoon ay magasin commerce lay gas lu tax place bi ñu ko am muy pàcc bii nga xam ne tey ku ne am na pàcc bi ñuy jar fa bis ñu fi xam kër moom xam na nga man koo defal yàlla man koo defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam man koo defal kër gi ndaw lu mel noonu ku ko am ci suñ kër gi suñ suñ li ñu doon ñaan yàlla ñu am ci junne yi junne ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaan loo nga ñaanal ko li mu wax ci Papis ñaan dafa tegu ci yoon wi rek Papis dax ko ci yoon wi waaye bu tegu utoon ci yoon bi papis bi jëflante ko moom moo tegu ci yoon dafa ñëw pour dimbale papis papis maa lay xamal ne doom kii dafa ñëw pour dimbale papis mi sama doom papaam Cheikh Tidiane mi mi së mi mi bàyyi mi ko jur sama mag li ma bokkal benn bàyyi moo ko sarbiya mooy sëriñam ak moom mi ak moom sax bu fekkoon li Sénégal bi def damay wax ne man suma kër doom suma kër taalibe laa toog ndax sama mag dama bokk ak benn bàyyi muy sëriñam sëriñu bàyyam mi sëriñu ay bàyyam sax ku dul Modou Niang rek ci kër ga ak payi bu ñam lu mag ñoom ñëpp sama mag mooy sëkk moo leen tarbiya waaye loolu amul itte li am itte mooy Mouhamed mii dafa tegu ci yoon moo tax papis di ko jàppale man dama laay dénk Mouhamed sëriñ bi moo xam ne dafa jar a ñaanal sigil nañu bi sëriñ bi ñëwee dafa wax ne ko ma dem ñu xataa ci xilaafa ku defaan dara rek daay wax ne versi na ci suma compte ndax may xalifa bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko doom xam ne jumaa ji li muy rëy parce que may xalifa bàyyi kay ci kaw te mu ne ko li ma gën a yéem naasi bil xaq bil xaq di nga tuddee barab bi man mosuma gis ko def jumaa di ko tuddee naasi bil xaq bil xaq ak barabab jàngukaay loolu ñu ngi la koy seedeel ndaw lu baax la ndaw lu tegu ci yoon la ndaw lu bëgg lu baax la moom de du ku ñuy wëllu si ci kër bi ci dëkk bi wala kuy def njombe wala ñu naan diw fu mu yendu démb wala fu mu faral bi koy la joxe wërsëg ba tey ci lii la ne ci njub mii def lu baax lii ci la nekk xam nga ne albadi gii nim nga man am bërëb bu mel nii koy tabax la ne ku ku tabax jumaa ji duñ ko dégg ci leneen ci dëkk bi te wallaay moromam yi su min ni jotee ñoo am ñu leen dégg te foofa gënalul la yow gënalul sëñ bi gënalul ñële ñun taalibe yi gënalul ñu dëgg la waaye alhamdulilah bi nga xamee ne dafa tegu ci yoon yoon wu sell wu nekk sëriñ Bay ñëw yàlla dimbale ko yàlla xamatal ko sëriñ Bay rek ndax bu sëy na la yàlla bu bëggee dimbale dimbalaaw bi dafay tàggat ko baax andi ko ci ñoom ba kërim yi ñëw rek dëkk ci pegg di ko jàppale teg ko ba ci tamit ndax may wax ne ma yaakaar naa ne soo papa bay mee daf may contrôler man na ko am dafa am heure yoo xam ne dafay jóg sa ay quatre heures el quelque di xool suma lamp yi ndax mu ngi tàkkam bi ndax naa julli si jàkk ji wala naa nga ko def ndax damaa yebal imam yi te man du ko julli loolu lu baax bu mag la ñu ngi lay ñaanal bu baax yow sëriñ bi fanu gudd taalibe yi maa ngi leen di ñaan sëriñ Mahi mii ñu koy ñaanal Cheikh Mamadou Mahi nañ koy ñaanal yàlla amuñ lu ko ëpp nañ koy ñaanal yàlla amuñ lu ko ëpp de nañ koy ñaanal yàlla rawatina ñu ndaw yi nañ koy ñaanal yàlla te leen ko ñaanal ci wéetaay bu leen nag bañ gis ko ñu koy ñaanal nañ ko ñaanal yàlla ci fekk ñun ñoo wéet ñun di ko ñaanal yàlla sëriñ bi kàddu yu gàtt yooyu rek laa noonu mënuma ko fee ñàkk wax di wax ne Papis gërëm na kontaan na bu baax a baax a baax sant na yàlla itamit mboolem ku mu bokkat tey su yeggee ne Cheikh Mouhamadoul Mahi euh, porte-parole yi bi mu ngi kër Papis tey de xam nga fu bàyyeen ne waaye du nelaw dëgg la mboolem lu bokk ci bàyyi bu ñaan tey di nga kontaan di nga bég parce que da ngaa xam ne Cheikh Mouhamadoul Mahi ñëw na tey kër kër kii moom de lii foogutoon ko defal nga ko loo xam ne foogutoon ko de waaye nag nit ku nekk ci diine yaa gën a am lu foogut sa baay wax sa maam wax na yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko may dama loo xam ne man jotuma woon la bàyyi wax ci yonent bi ku ne xam ne bàyyi boobu lu ne ko mën a jot kon papis li ko may nii ne ku bokk ci góor ak jigéen ñu ngi lay déggee sa toogaay gi nga toog fii waaye duñ ci am ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla wasalaamaaleykum nonta occasion ɓi ni daje soppe yi moom la ñu ubbi ñu gërëm bu baax taxawaay di rafetlu it kàddu yi nga xam ne Oustaz Ibrahima bi tey wax na ko ci Mouhamed loolu di gën a yokk suñu yaakaar ak digganteem ni bàyyam Serigne Mbaye Kori dañuy sawarloo ci moom Papis nag moom dañ koy wax ne ko lépp loo am tey jii looy liggéey liggéey ko yow pour sa njaboot waaye boo am ci barke Baye rek sama bu ñan liggéey Allahu akbar Baye moo wax ci moom wax ne faani la muhib bi saaxib bi boo xam ne ku jeex ci yàlla ku ma bëgg la te sama àndandoo te loolu mu ngi ci rafet naa ku nekk xam na mbëggeelam ak bàyyi sa papa moo ñang dama la doon nekk sëriñ ñang des dafa ñëw rek ne mu ne ma poñe paa rek ne ko paa est ce que xam nga ne bàyyi ma la gënal mu ne ma Modou wàcc nga loolu laa la nam gépp <laughs> xam ne bàyyi la bëgg bàyyi moom lu la ñuy wax donc dafa da ngaa war a am ko leneen la leneen la wax jàngal ci loolu nga xam ne fekk nga ci sa maanaam fekk boole laa ñi nga xam ne yaa jamono nga ci buntu boobu ndax Mouhamed ci lu mënta xew jumaa bi jumaa yi ñi mënuñoo ne du suñu ay bu jaaroon ci beneen yoon bu ñu xoolee ñu fekk na am na yoon bu nekk waaw mu nekk ci liggéey bi nga xam ne nii liggéey bi neex na ci ci ku ko mën a def beneen jumaa bu ma romb fii te xaw ma ki ko def neex na ndax boo dee lislaam waaye bu jumaa ji nekkee sa nag moo laa gën neex yéen ak yéen a bokk jamono yéen a bokk lépp yéen a bokk fay bi ngeen ànd jàppalante liggéey bi nga xam ne liggéey bi yàlla dafa loolu yàlla ko bëgg la moo la koy defal ñu ngay ñaanal yàlla barke nga xam ne sa maam am na ko ci bàyyi ci ci mbëggeelam ci kóolóoreem ak xidma yi mu defal bàyyi xam ne ñëpp xam nañu am na jamono boo xam ne Dakar kenn awu fi lépp lu ñu dox lépp lu bàyyi dox tool moom moo loolu nag il faut yàlla feeñal ay jeexital lii du fay waaye zahir il faut yàlla feeñal ay jeexital pour nit yi zahir yi loolu si waaye li muy am ci mbaay ëpp na loolu moom lii lenn rek la ci waaye yow it soxla nga bàyyi sa njaboot ñu ne ëllëg ñu papis moo ko def moo liggéeyal yàlla ba doom yi ayoo loolu loolu moo tax nga war a yëngatu waaye lu taxutoo nag loolu sa maam liggéeyal na loo texee ci àddina ak loo texee ci àlla waaw ñu a son bi waaye doon na wax ne barke bi jëmm waaye lu nekk ñu xam lu nekk ñu xam xam naa defal la barke. amiin yaa rabbi sa jëmm ak sa njaboot yu baax yi nga xam ne Cheikh Mouhamed wax nga ko ñu nekk ci yàlla du liggéey loo ko bëgg joxe. nguur yi sax duñ ko def ku ñu embauché rek bu weer dee ñu fay ku ñu bëggut a fay dañ laa ne su kii génn gut rek nangam naa fii la nekk fële la nekk waaye ku ñu embauché bu weer dee ñu fay. liggéey yàlla yi ku ci nekk yàlla moo la embauché. Hmm. waaw te loolu du xaar weer bu dee. te du xaar li nga natt yow li nga natt mooy fi sa xel am nga ne li yàlla ëpp na fi xel ak moo tax ñun ñëpp ngi ñaan yàlla ñaanal mbooloo mi yàlla jëflanteeg ñun ci ngëneelam bu sell yàlla si mbooloo bi ci yërmande ak yërmande ñun ñëpp nag yàlla tàggat ñu def ñu ñuy ay liggéeykat Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu ci nam ko bëggee nga xam ne mooy la neex yàlla neex yëpp bu si waaye si yàlla salal ñu ci àddina ak ci àllaaxira barke ci barke ndam yi barke jëm yi sa xol ci sa bopp ci sa njaboot ci mbooleem koo xam ne ni yaa ngi seex ak moom sa xoli waajur ci ci yow barke Baye Cheikh Ndiaye. ربه ولا يعاشر لا يدير إلى الحق لا صراع هذا دلت عليه تبصرا بمكة أمر الهاشم الدرايا واتي طيبة الله sagal nañu ci fii nga xam ne almadi fépp fu ñu jaar tey gis nañ la fii xam nañ ne xaajo yëpp faju na yàlla yàlla barkeel la kii mooy jabaru Aliou Seyni moom la moo nekk nii te nga ñaanal ko Aliou bëggoon naa ñëw dafa am liggéey bu mu dem xaajo ci moom xeeb nañ ko lool yaa rabbi سائر الموتى ومستشفي على رجوك في القبر حاضرا فكل شفيعا يوم زاغت والعانت وجوه وابصار ترى الكل حي وقد شاب ولدان وخاف مؤمنا وقد بلغت كل القلوب حناجرا وكل بريء على نفسي وقد جاء جميع فلا في ولا كابر ولا مالك إلا لله وشافعا سوى المصطفى المختار بدءا وآخرا فمؤتمدي حقا العطاء محمد وهل يتحدى لزمان كامع فمتبدي حقا عطاء حداد وهل يتحداني ثمان كبيرا Toujours ma doon dégg loolu tout temps tout temps. ba yàlla def. ba yàlla def. yàlla boole ma ak ñoom ma jël bi. yàlla boole ma ak ñoom ma jël tarixa bi. ci kër gi. dugg ci kër gi. kon di wax dëgg yàlla lii bett may ma aussi. yàlla may ma aussi. mu mës a ma mës a dajeeg. حمدي معك شريك حمدي يو معك شريك حمدي مارك شريك حمدي ماما ايفيتي ماما ايفيتي نيفر الشيخ مايسي سيدي نيو ñu yeewoo suba si. tisbaar fa la ñu jullee fajar bi tisbaar. waxtu yëpp waxtu yëpp. yàlla na la yàlla fayal. man nag pël laa dañu xam nga ne pël yi dañu bëri kaas. man nag pël laa des ñi xaritoo woon ànd ak ci yàlla yàllaa ko wax فأختشي الموسى والرضا ودادك يلهيني أبيت مورقا وقد شاب هودي وهو للحب